waaw boo déggee loolu nga xam ne émission bi tàmbale na maa ngi leen di nuyu suñu mbokk internautes yëpp rawatina ñi nga xamante ni ñoo safoo di suivre seen euh, site leader muy euh, seen flash si seen émission coup de waaw tey coup de dafa ñëw si beneen tournure ñëw si beneen facette tey dañoo am benn équipe benn match bu rëy boo xamante ne nii si zone 1 bu géejawaay boo xamante ni dafa am muy maanaam finaal bu rëy bu mag boo xamante ni géejawaay Sénégal ñëpp koy xaar muy lan ASC déggoo ak équipe bi nga xamante ni moom mooy ASC jàppoo Sam ASC jàppoo Sam nekk ASC bi nga xamante ni nii gëj na dem final déggoo gëjul dem final ñoom ñaar ñu wajar a daje samedi le 14 incha allahu rabi fii nii si stade Amadou bari ñu demoon nag seen koñ dem seeti leen xool naka la ñuy préparé euh, match yi nga xamante ne nii moom si lañ jëm muy final bu rëy bi. dem nañ si équipe bi nga xamante ne moom mooy ASC Jàppo Sam dem xool seen préparation bañ fa demee dégg nañ fa ay réaction wu entraîneur dégg nañ fa ay réaction dirigeant ak fi nga xamante ne moom mooy ASC Déggo ñoom tamit kazalika seen i dirigeant euh, seen président tamit fekk nañ ko foofu noonu moom tamit mu am lu mu wax lancé benn message bu fort waaye li ma gën a neex si waxtaan bi ñoom ñaari équipe yëpp à chaque fois bu ñuy waxtaan dañuy waxtaan si li nga xamante ne mooy maanaam match bi war nañ ko mën a jouer si zéro violence sport mënul dox ak violence sport buy dox day dem sans violence te ñoom ñaari équipe yëpp si loolu la ñu woote si final bu rëy bi nga xamante ni war na am seen diggante muy samedi la 14 stade Amadou Barry bu ko defee dañuy dem seeti éléments yi après bu ko defee ñu ñëwaat fii si plateau bi. Euh, mbokk yi euh, tey ñu ngi ñëw euh, fii boo ko gisee nga xam ne ñu ngi HLM Paris. ci ASC Deggo di ASC boo xamante ne bu am histoire macha allah tey ñu am final ñoom ak jàppo Sam bon ñu ñëw seeti seen supporter seeti seen dirigeant seeti seeni i entraîneur seeti seen capitaine xool nan la ñuy waajalee euh, ñoom seen final bi contre jàppo Sam waaw kon sama caméraman ñu doxantu xool gars yi lan la ñu andi. nan nga gisee euh, final bi yéen ak yéen jàppo Sam ak yow lan ngay représenté ci ASC. waaw delloo ziar di sant waaw ah, final bi ñu ngi nii di ko waaj final mooy loolu mas bu mag la te mas bu neex la gars yi dañu liggéey ba fii wala jouer final te final fet la te déggoo jàpp moom final dàq ko parce que revanche la quoi amoon na 2006 moo ñëwaat nii 2019 waaj waaj ak waaj ak gars yi waaw asalam bi yëpp waaj. man maay vice président des supporters de l'ASC Diogo waaw Diogo laa bokk. bon yow nan nga gisee final bi jàppoo sam ak Diogo. waaw Japo Sam ak déggoo xam nga lolu lu yag la daanaka sax léegi la léegi la doon ñaari ASC waye fi lepp ben ASC la won muy ASC déggoo. la wax mais que le maire gagne Yalla na yàlla jox ndam mi ASC déggoo ndax nak fi la dëkk ku ràcc jëmale sa kanam mu deul. c'est un match qu'on va préparer comme on préparer tous les autres matchs venir pour gagner ak nos armes ak non non non non forces. jàppoo li wax ñu waj rek ñoo jouer final bi dund fête mu neex non violence. ñëpp ñoo ñu dund ko mu nekk fête ñu gañe leen après ñu souhaité ñu félicitation ñu ñu wax leen découragé ñu àndaat. ngay wax waa jàppoo saam. waaw waa jàppoo saam di leen xamal na leen rek ah. waaw dina métti daal du yomb daal waaw loolu lañ leen di xamal xamal na leen jàppo saam daal su yoboo ñu xam ne moom. yow da nga yaakaar ne yaa mën waa jàpp. non waa jàppoo ñun ñoo leen mën loolu du yaakaar sax loolu moo am te après dinañ ko waxaat. <laughs> Euh, président tey nga finalu yow euh, ban euh, maanaam yow lan la lay def. enfin xanaa satisfaction. je suis très satisfait parce que bi ñuy door wax dëgg yàlla xalaatoonu daan ñu ndax ay xale la ñu indi. dañuy doon tax dañ doon tabax équipe. les gens et seul le travail paye. c'était pas évident kenn xaaruñu woon fii c'est ça la vérité kenn xaaruñu woon fii. mais au début dafa am lu ñu waxante woon man ak ñoom nit ñi xamuñu li ngeen mën mais man xam naa li ngeen mën su ngeen liggéeyee on va aller jusqu'au bout ils l'ont fait et on non violence pour gars yi ñëw fair play quoi. non violence bi déggoo jàppoo pour man sax dara xaju seen diggante parce que da ngay gis ñun dañuy fréquenté foofu ñoom dañuy fréquenté fii amul lu kii jàppoo la dëkk si boteeru déggoo la man damay nekk jàppoo da mooy loolu ñu ñëpp ñoo far final la rek benn match la ay heure mu jeex ñu àndaat. ànd dem nag joué ko ci fair play euh, joué ko ci fair play daal pour xam ne mbir mi folo ak ree quoi non violence bañ ci am ndax jàppoo saam déggoo ku leen xam-xam ne benn lañ ay xarit lañ ñi ngi demlante dikkalante am nañ fa ay copain ñi takk nañ fi jabar comme ne ñi am nañ fa jëkkër maanaam daal ñu ngi woote daal nga xam ne lépp daal nañ ko def ci jàmm ak salaam waaw mais xale yi la ñuy ñaax juste pour wax leen lii foo kaf la ak foo ak ree. ten leen ni affaire yi foog ree rek la waaw bu nu demee que le bu nu paree après dañuy dañuy retrouver waat ñaan ñu yàlla def lu nga xam ne si waa jàppoo saam waa jàppoo si ñaanu loo xam ne dana ko defanteeg waay déggoo bu subaa alors ku nekk moo di sëgg. final moom feet la. waaw ndax diggante jàppoo saam ak déggoo yàgg na. pour man feet la war a nekk. dara amul dara lu ko war a yàq. c'est une compétition nak mo am enjeu ben trophée kenn mo koy gagner kenn mënu ko seddo suñ ko mënoon seddo dañ koy xaaj ku nek jël parce que l'amitié bi nek entre les deux équipes. déggoo ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ñom ñoy jouer pourquoi yeen bon da ngeen amul ouverture wala qu'est-ce qu'il y a. wa non déedéet du dëkk ci koñ bi parce que il euh, y a au moins lu jege 10 joueurs yo xam ne ñu fi. daan d'abord affaire quartier j'ai un ami je rencontre une anecdote j'ai un ami dafa ñëw di seetaan ci déggoo mu ñëw ku ñu ne xamu ku xamu mu ne mu ne dootu ñëw ci stade dootu gisul quartier bi parce que nawetaan d'abord c'est le quartier il faut que les enfants du les jeunes du quartier jouent maintenant nag du du ouverture comme on le fait en ce moment. ay ca gars yi Gris bon tey ñi ngi doxantu koñu marché Sam ci équipe bu jàppoo Sam mu ak bon jàppoo saam nag bi mu gëjee finaalu ba léegi dafa mel ni depuis 2006 la moom ak euh, Golf Nord kon tey la ñu ñëwoon seen entraînement xool ñoom nan la ñuy waajalee final bi war gis dirigeants yi war a gis supporters yi war a gis seen président su fekkee ne mi ngi fi Samba kon loolu leen andiloon. per euh, maa ngi lay nuyu yow euh, lan ngay représenté ci équipe bi. Hmm, bon man je crois <laughs> parce que man équipe bi yàgg naa fi depuis 82 so 83 lañ commencé jouer nawetaan mais 82 d' abord. maa ngi ci équipe bi kon donc actuellement nii def naa ne euh, man rek maa fi des pour le moment bon 85 laa commencé dugg ci encadrement technique jàpp ci cadets yi ba fi ñu toll ni maa ngi ci équipe bi parce que euh, maay maay directeur bi. man maa ngi tudd euh, Pape Seye Diallo presque maay capitaine équipe bi que nu ma capitaine équipe bi sax man maa ngi fépp. supporter là, dirigeant là, joueur là, à un côté fait fait laa fait daal. man vice président commission sportive bu ASC bi parce que deux ans je mon maa connais nekkoon mais ak sama liggéey moom me permettre après ma jël ko quoi ma mujj ko jox suma de boy bu fi mais comme ñun ñëpp dans ci commission sportive bi a beaucoup de choses di dorando quoi pour l'instant yow euh, en tant que coach Diapo Sam nan nga gisee final waaw sama xarit lay mais en tant que technicien je crois que ce sera une belle finale finale bu neex la voir parce que mën peut-être nous avons ñaari équipe zone donc finale je crois que ce sera une euh, fête du football c'est deux bonnes équipes go. c'est vrai que euh, encaissé gul bi mais c'est une grande équipe qui a l'habitude de jouer les grandes finales 2016 le gëj a joué finale. Donc, ils ont de très grands dirigeants. C'est vrai que ce n'est pas une équipe où, où, géniale ou trop, mais c'est une individualité. L'équipe y a fait finale, donc je respecte. Sur le plan footballistique, je suis un match parce que bon on regarde, l'équipe est vraiment. C'est vrai que la phase de les gars, ils ont minimisé. Mais si on sait vraiment, on a une équipe qui peut à connecter parce que les xoolee phase de poule bi but mais il y a des tamit qui nit ki qui est banj, banj, affaire une grande équipe. ni ma gisee match jàppoo d'ego, bon match rek comme match bon préparation finale la du yomb parce que lépp loo gis bo débuté ci commencement bi dafa am fu yem te trophée. yem bi trophée day agressif xam violence non violence Nous avons quoi dañuy pour jouer fair play Yalla dimbalé ñu jël trophée parce que gëj na fi ñew té suñuy doom fait suñuy rakku yu bari fekk wuñu finalu là sam bi nak dañu ñaan ñu jël ko ak ko quoi. parce que trop pendant 13 ans ñu tok finalu ñu ren jouer final di jouer équipe respecté euh, kon loolu amul ñu ne final final faire la quoi ñu dem jouer mais nak jouer pour gagner parce que final tamit kenn diko jouer dañ koy gagner quoi. yow ban message ngay lancer ci non violence. wa non violence mané képp ku ci indi violence nga xamante n'est pas fait pour le sport. c'est 90 minutes bu doon xex kon normalement les 22 secteurs ñu dem terrain bi ñoy war a mais ñooñu ñu xeexuñu d'ailleurs déjà bo xolé à Diapo dégo Diapo c'est des joueurs yo xamné ñu ngi GFC donc ñu après le match ils vont se retrouver à à GFC. man lu am violence beaucoup.

football dafa war a boole quoi warul di tàggale surtout nga xam ni jàppoo saam ak ay say déggoo nekk ñaari ay say yoo ne boo xoolee ñoo dendee pratiquement ñun ñëpp am nañ ay xarit dëkk déggoo waa déggoo tamit noonu boo xoolee suñu mbëri fi dëkk sax di bëre biir déggoo la ñuy entraîné kon ñun ñëpp benn lañ quoi bu dee stade nag bu ñu dugusee stade la dañuy zingal zëmbale xamoo nga supporter suñu équipe poussé ko mais buñ paree nii xam nga ku mun ci gagné tamit ñu gunge ko kafre nawetaan loolu quoi football la aussi. Gris lii la leen andiloon ci seen euh, émission coup de sifflet demoon nañ seeti waa Deggo tey waa jàppoo Sam lañ ñëwoon seet si ñu nekk seen entraînement. gis nañ seen engouement ak euh, ni ñuy préparé. seen final bi yaakaar naa ni final boobu noonu du yomb incha allahu rabbi entre déggoo ak jàppoo sam samdi 17h incha allahu rabbi jaajëf. ñëwaat nañ fii nii si plateau bi bon gis nañ réaction ñaari équipe yi nga xamante ni nii ñoom ñaar ñoo war a football muy ASC déggoo ak ASC jàppoo sam dégg ngeen ni ñu waxee dégg ngeen ni ñuy préparé match bi waaw ci kaw loolu tamit dafa am leneen li nga xamante ni daf fi am muy lan muy que ni demoon nañ tamit seeti ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy seen dirigeant yi. toog ak ñoom waxtaan ak ñoom mooy maanaam comité directeur bi ku ci nekk am na ndawam bi nga xamante ni boole nañu ak moom ñu toog ak moom waxtaan ak ñoom waxtaan bi nga xamante ni nag gudd na guddul waaye ñoom tamit am na ay message yu ñu lancé message yu fort mais ba ci léegi rek ba ci biir waxtaan rek ñoom tamit am na li nga xamante ñu ngi koy fàttali tamit supporters yi muy lan muy que ni sport dafa nekk li nga xamante ni maanaam foo ak ree la sport bu boolewul warul xajale mooy lan mooy message zéro violence à chaque fois ñu ngi koy indiwaat ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk euh, ndaw ñaari ASC yi ñu jotal yi ñu jotal toog waxtaan ak ñoom donc mu nekk ay réaction yi nga xamante ni réaction yi positif waaye nag ci biir loolu dafa am benn euh, dirigeant bi nga xamante ni muy dirigeant kii jàppoo euh, sam su moom nee na complètement waa jàppo bu ñu rasu bu ñu def yëfu Lac de Guiers maanaam même bu ñu rasoo sax def yëfu Lac de Guiers sax ñoom dinañ leen fekki foofu noonu jëli leen te dañoo bëgg maanaam déggoo génn football bu mu nekk équipe bi nga xam ne day taxaw rek di xaar di xaar di xaar ndax dañoo bëgg bëggal amateurs yi bëgg gi bëggal monde sportif yi maanaam nañ génn football mu am bon équilibre mu bañ a nekk football bi nga xamante ne dañuy toog seen camp ñoom ñuy jàpp jàppoo di dem di ko wuti ji rek mu nekk waxtaan bi nga xamante waxtaan bu ma neexoon la si ñaari diggante ñaari dirigeant yooyu noonu dañuy dem xooli élément yooyu noonu après ñu ñëwaat. asalaamaaleykum maa ngi nuyu senegal askanu Sénégal askanu Guédiawaye ñëpp maa ngi leen nuyu. di nuyu mbokk internautes yi di nuyu Gris di la nuyu bu baax di rafetlu liggéey bi ngeen di wax def liggéey bi ngeen di def ci fonctionnement wu démocratie rafetlu nañ ko bu baax a baax di leen sant di leen gërëm bu baax. ci dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu sama ASC bi ma bokk jàppoo Sam bi nga xam ni ñoom ñoom laa représenté aujourd'hui fii en même temps dina représenter au niveau de la zone di nuyu sama adversaire du jour l'ASC Dego que je respecte beaucoup maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci liggéey bi daal. di nuyu mbokk internet yëpp voilà di leen gërëm yéen waa seen flash tamit gis nañ taxawaay bi ngeen am ci final bi ak accompagnement bi ngeen am ci événement bi voilà di nuyu waa Guédiawaay yëpp. di nuyu tamit waa zone 1 di nuyu suñu équipe bon fi ñu juddoo fi ñu am fi nga xamante ne moo ñu tax a toog fii tey muy ASC Deggo di waa HLM Paris di nuyu tamit euh, riverains yi nekk suñu côté yëpp muy yeneen ASC yi di nuyu aussi suñuy adversaire jàppoo saam. waaw Youssou mu am benn jàngat bi nga xamante ni def nañ ko ci biir ñaari ASC yi ñoom ñaar jotoon nañ laale jàngat bi nga xamante ne bi nga njëkk am si bañ laalee ak jamono jii nii tey ngeen war a daje final sa première impression lal la. waaw effectivement comme ni nga ko waxee. ASC Déggoo ASC jàpp ñoo bokkoon poule ci poul B bi ñu daje woon ci troisième tour bi def 0-0 euh, jàngat bi ma ci njëkk am mooy bi ñu nuyulee man sama première impression pour dire vrai dama ne peut-être que euh, match la au goût de revanche mën nañ dajewaat. puisque je respecte beaucoup laay et dans dama ko même si sur le plan du jeu mais équipe redoutable On a créé jouer jeu, impression à notre niveau diapo nous de faire parce que nous, ñi ñun on même su si département bi yëpp défaite ñu koy santé. mais il ne faut pas toujours négliger l'adversaire parce que dégo en phase zonale ba légui encaissé goul but je pense que c'est quelque chose qu'il faudra euh, prendre en compte derby là on peut dire donc euh, final la bo xamantene ne gëm événement du ko daax dal nañ suivre ay final yu mais bi gëm naa ne final du ko du ko gën a rëy incha allah ci ci ci ci engouement ci ci équipe yi tamit voilà qualité joueurs yi parce que ñëpp xam nañ ne cette année bon jàppo sam à l'une des meilleures équipes bu Guédiawaye bon déggoo tamit équipe bu xaw a tane la noonu rek mais bon ça va quoi ñu ngi ñu ngi góorgóorlu ba yegg si fii donc gëm naa ne daal dinañ am final bu neex a neex a neex incha allah. mais ñaar dafa mel ni mosoon ngeen daje si histoire. waaw ci histoire moom mës nañ daje moom du may faral sax di bëgg di dugg ci histoire bi parce que. Nous avons dinañ xaw a ñàkk argument trop te bëgguma parce que nous ak vraiment ci confrontation directe Nous sommes largement favori mais loolu un petit papier avec le le parce que match moom gagné donc nous na loo ne ci man amul favori Oui, am favori favori cette année mais nous avons une confrontation directe franchement nous avons un am avantage bi nous avons gagné depuis 1999, donc ça date de très longtemps donc côté boobu dal amuñ ci ki dal amuñ ci titangé donc euh, ñom ñoy jël ci dal adversaire bi dal dégo nous la maîtrisons pas mais nous la connaissons Pour nako sank ci biir waxam ñoo ancienne zone 1. bi finale bu neex dal la jouer une finale traditionnelle D'autant plus que ni ñom dañu amel en 2005 ñom ñoy le stade de l'amitié 1-0 nous en avons pris acte ñi ci travail dal pour jël suñu revanche statut de favori nous ñi ñong koy wax mais mën naa en 2019 bi sur le plan du jeu amul ben équipe bu mi envie à Guédiaway mais football dafa am yenen paramètres qu'il faut prendre en compte du faut nawetaan plutôt amna lenen ak lenen nek ci ginnaw amna aspect euh, dirigeant amna aspect mobilisation amna na yenn aspect yoy tamit ni ngi ciy travailler cette année dal bëgg na inshallah vaincre le signe indien comme on le dit battre des go pour prendre notre revanche. non le li ma wax par rapport à l'histoire, mais cette année nous xam nañ ne jàpp favori ou zone bi côté équipe donc équipe boo maintenir ne amagul amagul défaite la bien que ñun phase zonale amaguñ défaite mais départementale am nañ défaite nous sommes éliminés mais ñom ñu ngi en lice ci départemental bi ak zonale bi donc am équipe bu mëna a dégo lool mom waxatuñ ko ñom ñoy favori voilà. légui lan motax nga jël favori bi yépp nga jox dégo loolu stratégie la wala dafa nek li nga xam dañ leen mën wala. non non même pas du stratégie sax kii la rek réalité la ñoom ñooy ñoom ñooy favori quoi côté équipe franchement. sur le plan du jeu nous n'avons rien à envier à dégo Déggo tiituñu leen ben yoon te gëm gis le vrai visage de Diapo cette année-ci pendant trois ans nous avons traversé la désert le désert plutôt def trois ans yoo eu le premier tour peut-être que ah, manque d'équipe eu un manque d'équipe, équipe mais cette année ci avons une équipe Nous des des arguments à faire valoir pour gagner GO ou pour gagner Kenen. sax match je ne du pas gagner te joué GO, ko wax mais sur le papier instant Sambini, nii favori euh, boo génnoon def micro trottoir Guédiawaye ñëpp jàppoo la ñuy jox favori mais bon yalla baxna comme ñun non lañ commencé jouer quart de finale bi nekkuñu favori demi finale bi nekkuñu favori tamit yalla def na bañ yegg si finale yalla nañ continuer di bañ nek favori tey gagné voilà lool rek laay ñaan mais bu dee côté équipe mom jàppoo à largement l'équipe pour pour pour battre Déggo. Déggo dafa naqaree jouer man loolu lu ma gëm la te lén dafa am ci histoire waxnako sank ñun dañ leen gëj gagner psychologiquement day travail ci ñen ñi mën na bañ a travail ci man mais peut-être que am na ñu muy travail gëñ na leen gagné ci soir loolu lañ ciy prendre compte léegi nag liñ daan def liñ dul woon def pour gagné leen je pense que dinañ ci travail ba xool cette année si fan leen di jaar pour gagné leen parce que ci match de poule bi dañ leen dominer 90 minutes def 0-0 peut-être que dañ yokk tuuti daal lu manqué woon rek ñu yokk ko incha allah jéem leen a gagné. waaw si biir jàngat ñu gis ne déggoo match de poule day xaw a day sooxe waaye bu génnee rek bon day dem final bu ko jëlul bon da koy perte loolu ban liggéey la. waaw déggoo moom ci man euh, force déggoo mooy quartier bu ndaw parce que HLM Paris 200 et quelques maisons la donc du quartier bu mag voilà donc euh, suude bi fa am génération yëpp ay àndandoo di dóor muy mag ñi ak xale yi benn benn benn bopp la en fait tey boo demoon équipe bu mal ni jàppo sam par exemple mën na mat déggoo 10 ci côté.

Euh, sont tous mobilisés, tous mobilisés, peuple de Diapo dans son ensemble, les dirigeants, supporters, magni, sont mobilisés puisque 13 ans, Diapo joue le final. 13 ans, Diapo soulève le trophée, Coupe Zonalbi, Nous courir derrière 13 ans. le sentiment que nous avons animé moi cette année ci dañu gëm gagner il va falloir que ñu gagnions cette ñu gagnions cette coupe Lors tax moo tax à Diapo soo fa demee y a de l'effervescence y a de l'ambiance Moi, nous ñun ñëpp loolu lañ gëm objectif boobu la ñuy demee ba keroog nag leneen di xew parce que mënul nek lu sport déggoo comme jàppoo ñoom ñëpp géejawaay la ak lu munti xew tamit ku bi géejawaay lay dess dal mais sentiment boobu mo animé le quartier mo ñu animé ñun ñëpp capitaine beeg entraîneur beeg dirigeant yeeg supporter yi ñëpp sentiment bobu mo ñu animé dal loolu gise la dañoo demoon sa koñ ñu wacc sa koñ ñew gis footballeur yi di entraîner ñu jël fa ay quelques nit yi nga xamante ni ñoom ñoo doon intervenir di wax bañ leen laajee ñoom ñëpp am na kàddu yu génnee ñii nee nañ bon jàppoo ñun xoolu ñu leen ñii nee nañ jàppoo ñun ak ñoom saa yi bañ suukar la affaire yu ne maanaam ni ñu doon waxtaanee daal ñoom façon wax bu nekk wax nañ ko daal ñoom jàppee nañ jàppoo daal comme ki nga xamante ñoom jaar nañ ba pare ñoom jël nañ ko bi ba pare. optimisme la parce que tamit nit ci lépp looy dugg donc da ciy dem ak volonté wu am ndam donc ñun ñëpp ci suñu xel yi. xalaatuñu am leneen lu dul lu dul lu dul victoire incha allah ci jour finale bi mais buleen leen bu leen yaakaar ne sous-estime la wala dañ dañ leen xeeb wala leneen non non du tout finale bi voilà fonk nañ ko trop lépp li nga xamante ne war nañ ko def pour gagner ñu ngi ci def nañ. ñu ngi continuer def te dinañ gën def incha allah ba yàlla may ñu ci ndam mais loolu noonu moom jàppee ko rek optimisme daal du du du excès de confiance mais optimisme la voilà. match bii di ñëw comme final la ma leen di ñaan ñu génn pour rendre la finale belle parce que waruñu ñëw tamit ñoom 90 minutes les férus du football mu monde nawetaan mouvement ñëpp waaye génn ñëw gis benn équipe di jouer rek muy jàppoo déggoo daal li ma koy ñaan mu génn ñëw ñu jouer ñu gis final bu neex que le maanaam mu bañ a rasu. waaw mu bañ a a def Lac de Guiers lu muy def rek daal di taxaw na génn daal ñëw joué mais bu Lac de sax dañ koy jëli bu taxawee ci ay camp ñu jëli ko génn mu ñëw ñu joué këlëmee ñu gis football bu neex daal parce que tamit am nañ envie gis football même ñu bokkul sax nawetaanu Guédiawaye soo déggee jàppoo saam dégg déggoo c'est une finale traditionnelle une finale historique parce que ñoo composé une ancienne zone 1 bu njëkk ba finale bu yàgg la rivalité non adversité du jour là, rek pas de rivalité entre et déggoo amul rivalité puisque nawetaan gëm na ni dal même fait fekkee am na ñuy dund rivalité animosité waru ci am mais nak ay adversaire war nañ am D'autant plus que et déggoo ay frontière la naturellement c'est un derby kon donc dal li ma koy ñaan mu ñew gënum football ñun ñu football ñu gis final bu neex que le meilleur gam buñ duggé ci histoire rek buñ fatali ko voilà on a mille et une raisons ou gëm né nous avons final parce que nous ak jàppoo ci histoire nous yoon gagné tamit la a gagné depuis 99 nous a gagné 2003 demi finale gagné nañ 2005 finale aussi bon na am ci victoire sport beaucoup nous fair play la wax match bi ni ngeen ciy demee ak ni ngeen dafa rigueur parce que bañ nous, sa koñ gis nañ nous yi di gis nañ yi di gis nañ tamit bon dirigeants yi fa ambiance nous avons mbooloo tey nga war a lancé benn message bi nga xamante ni pour xamal leen ni sport la fair play moom mooy tey yow boo doon sànni kàddu ñan nga koy wax. waaw effectivement loolu dinaa ci sawar a wax ci violence puisque euh, Mara wax na ko léegi nawetaan dafa am benn facette ñun bu ñuy xoolee ñun en tant que euh, acteur du mouvement nawetaan parce que koo wax danaa la mouvement nawetaan amul njariñ c'est une perte de temps à njariñ Si vous étrangler le Sénégal le en tant qu'acteur du mouvement Némétal vais lancer un appel solennel à tous les supporters supporters qui euh, képp dirigeants dirigeants, faire à preuve cultiver le fair play puisque tamit euh, déggoo comme Diapo man am moom mi fa ay xarit dañuy di ñëwati violence xaju fi je pense que tey jii même ñun suñu ASC yi buñuy affilié, en ñuy affilier wala ñuy réaffilier ODCAV dañuy imposer à ce que ñu signer wala ñu ñu engager à cultiver le fair play et la non violence mais liggéey bi waru yem fofu dafa war dem au delà puisque ONCAV wacc ci ODCAV ñom ñoy structure organisatrice bi ñom ñoo wara def def ay des forums def des pare di sensibiliser nit ñi sur la violence di wax violence expliquer ambition première de violence Le rôle un mouvement nawetaan moom incombé mais nous en tant qu'acteur, comité directeur de l'AIC nous avons sensibilisé les sensibiliser supporters tous les dimanches di réunion di supporters à ce que ñu bañ violence quoi violence la violence n'a pas sa place dans le milieu du sport et le sport est devenu aujourd'hui un facteur de rapprochement des des des peuples puisque Marmi Mounane, mun naa c'est père secrétaire général la en 2015 ou 2014 nekkoon na secrétaire bi ñu ci bus bi dafa ma ko ni indi d'excellentes relations lu ci mel ni Khalil ñoom Balla Dramé ñoo beaucoup zone pour man daal waruñu ñëw stade le samedi muy jeex ñuy ñaaw je pense que wax ko sànq ak xew daa jàppoo uddeegoo kuy munti gañe ku bi way lay fanaan loolu amna solo trop Sam Notaire précisément biñu bok bokk fa lay may lancer un appel jappo bima bok xamna xam naa samay dren un monde fou jappo dañoo bari mais dañoo c'est difficile à canaliser puisque à l'occasion d'une finale ou demi-finale les supporters a sol à l'effigie de l'ASC ne jàppoo lañ faral fait, mën que indil dégâts collatéraux ont ñun supporters yi ñu preuve de fair play et de non violence à ce que que soit belle. mouvement dafa mouvement qui ñu étiquette franchement ASC Deggo du pour nous jeter des fleurs waaye ñep xam nañ ko ci ci non violence en fait parce que yag nañ dem jouer ji dañuy am défaite dañuy àndandoo dox ñew suñu koñ. ba paré moy limay wax sank quartier bu ndaw bi ñu am mu dafa nek suñu force ci ben côté moy que mën nga canaliser ñep képp ku far Deggo mën nga ko xam donc côté bobu mom yalla dimbali nañ juste rek ñuy lancer waat parce que du du doy dal ful mom

ay nit war a xeex wala di xiiroo ci loo xamante ne football kase la coupe bi buñ ko jëlee nga def sa bilan li ngay perdre day ëpp fuuf li ngay gagné donc amul luñ ci gagné lu dul bon joie bi quartier bi di vivre loolu lañ ci am donc amul lenn lu jar violence ci man côté boobu moom franchement man mën naa ci dalal xelu ñëpp parce que ñun xam naa ne duñu duñu ASC buy buy indi yooyu noonu et que am nañ maîtrise tamit ci suñu public bu baax et que dinañ leen mën a canaliser ñu ngi ci te dinañ continuer di ko def comme chaque année rek. bu ko defee ma laaj sa dernière cadeau. sama dernier mot moy di wax ni di lancer un appel à tous les sportifs de Guédiaway fu ñu munti nek ñu ñëw parce que final de dégo c'est la revanche de 2005 finale historique la gëjoon au stade Amitié et naa ni que ce sera une belle finale ñëpp dinañ ñëw ñu jouer dans la sportivité dans le fair play et que jàppoo gañe déggoo rek ci am ndam bu seddu guy loolu kese la daal waaw loolu rek laa bëggoon a wax di remercier ñëpp jàppoo sam bi bokk dirigeant yeeg supporters yi ñëpp di remercier sama adversaire yi déggoo di remercier le comité directeur le président en l'occurrence ci travail bi mu def remarquable puisque bi mu ñëwee ba gis nañ pas à pas trois ans Diapo commence à voir le bout du tunnel puisque nous avons trois ans nous avons eu joué quart de finale premier tour Nous avons eu. le président bi mérite je pense qu'il faut le saluer di ko wax ni ñu a parce que avons eu une compétition bu nous suñu kanam demi-finale départementale ci si histoire Diapo musul gagné trophée départemental je pense que ni avons ñu ngi ciy travailler di wax ni nous euh, ñi le samedi 14 nous avons inshallah, que la fête soit gagnée et que Guédiawaye en sortira vainqueur c'est tout merci lu rek euh, initiative bi parce que franchement monde bi mo face bu rafet facette bu rafet dañ ko a encourager di wax tamit internautes yi ñu ñu a abonné ak di di liker aussi vidéo parce que lii dafa am solo ñun amuñu lu dul donc bu ñu gisee koy ku ñu tamit en revanche ñu voilà waa HLM Paris yëpp waa Déggo gis nañ seen taxawaay gis nañ ñi ciy jàpp de près ou de loin gis nañ soutien financier yeeg matériel yi moral gis nañ daal ku ci nekk li nga ci mën a apporter ci édifice bi yaa ngi koy yaa ngi koy apporter di jaajëfal ñëpp. voilà di ñaan yàlla tamit yàlla may ñu ndam lu sedd guy voilà violence bañ a am dara bañ a am ñu jëlee coupe bi dox jaar biir jàppoo ñu tàccuñu ñu indi ko koñ ba feete daal loolu daal la ñuy ñaan yàlla incha allah. gis ngeen bokk yi bon coup de sifflet la lii la leen indiwuloon tey lii la indiloon tey dem ci terrain bi wàcc laaj ñaari équipe yi naka la ñuy waajalee match yi toog ak dirigeant yi laaj tamit. ñaari dirigeants yi naka la ñuy waaje seen équipe waaye nag ci biir loolu loolu dafa am li nga xamante ni bu ngeen si bàyyi xel waa déggoo ñoom dafa mel ni dañoo jël favori yëpp jox ko équipe bi nga xamante ni moom mooy jàppoo euh, saam te loolu man mën naa wax ni mën na nekk piège parce que football des fois ah, dafa am ay affaire yu caay-caay am affaire yu sew yi nga xamante ne daf si nekk mooy surtout bataille psychologique bi boo xoolee waa déggoo ni ñuy waxee à chaque fois ñoom ñu ngi jël favori bi di ko jox équipe bi nga xamante ne moom mooy boo déggee seeni réaction da gis ne ni dañ ko bëgg a jëli maanaam ñoom final bi ñoom ñoom nañ ko jël mais damay wax nañ def ndànk lu nekk xaj na si même adversaire booy boo ko mënee mu leeral ni ak sax respecté ko ko jox ko cër ndax football équipe bi nga xamante ni moo mën équipe ñu dem si terrain bi équipe boobu gañe ko donc nañ si dem ak ndànk lii la ñu indiloon tey mu nekkoon mbégte partagé ko ak yéen yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg football yéen ñi nga xam ne da ngeen ni bëgg sport surtout ñi nga xamante ne ay amateur lañ bon tey coup de sifflet lii la indi woon partagé ko ak yéen fas yéene nag di continuer di wéyale suñu émission ak si yeneen tournure ak si yeneen tamit facette di leen jaajëfal encore une fois de plus di leen wax ne bon kontaan nañ si li ngeen ñuy topp saa su ne bis bu ne